non dama jàpp ne loolu yëpp bu ñu ko defee rek ci dañ ko jublu ci sécurité askan bi parce que buñ ne trouble à l'ordre public ku nekk gis na ne premier bi muy dem di wuy ji ci projet bi foule bi ko toppoon lan la ñuy yàq ñaata ñaata nit la ñuy empêcher seen dem ak dig nit mun na jug war a dem hôpital nekk urgence ñu bloqué mbedd mi bloqué tali bi kon lépp luñ mun a def ba fexe foule boobu du am moom bu bëggee dem wuy ji mu dem si jàmm bu woote wutoon appel à l'insurrection génn leen ñu dem xeexi ji dañ maa bëgg a faagaagal ñëw leen sama kër mais loolu du fa am. mais pourtant Macky Sall loolu du fa am gunge nañ ko jëlee ko këram. yóbbu ko ba euh, euh, gunge nañ ko. ñu toog xaar ko. waaw ñu ñu entendre ko génne gungewaat ko yóbbu këram loolu. Euh, opposants yi amuñu ko suñu toll nii mais est-ce que Macky Sall bi mu koy def est-ce que Macky Sall bi mu koy def ñi àndoon ak moom dégg nga ñi ne nañ taal Auchan nañ taal Total. nañ taal këru jàmbur yi nañ saaga kilifa diine yi. est-ce que loolu amoon na jamono ñooy taal est-ce que woote woon na ne kaay leen gunge ma nañ dem yàq. ñan ñoo demoon buntu assemblée nationale. ah ñan ñoo mais Macky man ci laa bokkoon ñun ñëpp ci lañ bokkoon mais ñun dañoo ñun mosuñ nangu dévier institution bi fi am. est-ce que bi ñu demee ba bi ñu demee ba taxaw. tey jii nanguwu leen ndaw ndaw yi dem buntu assemblée nationale te pourtant barki Dembo Ndiaye ñi fi nekk ñoo yoroon xeer yi. waaw mais bi ñu ko defee mooy arrêté Ousmane Ngom bi ñëw interdit foofu noonu kenn amatu fa accès parce que loi la loi mayeetul nga dem ba buntu assemblée nationale wala nga dem ba foofu taxaw fa kon nañu tënku rek ci loi moo ñu tënk ñun ñëpp